competition wala ko be kililo ke la gala dina la ni um, concert dance um, mekala independent stadium gala dina mekala penchami hall and ticket so yela mo fula sama na jam mi mo mr sala tani mr cisse pro ni mo um, practice so be nyame and events be be program be be nyame um, manjiki mo nyanda tula kuma so mr sala mr cisse um, na jikina dia mo manika kan na manika kan mo ilal ya lo mbe kiri sai fana sai futano kodi yeah Uh, Mr. Sise Utel Koso. Uh, baraka wake, uh, coming uh, na programu belari wole nyama. Eh, mbe ne ko sawo gamtel gamtel staff association ka fundraising programme o kele aɗum ñin fundraising eh, ne a keta koɗo ñin kanto a buka tumo kumpoto i ka fuddinde ka koɗo ñin keñamen e o dalilo kamma mba fala Eh, e al funtina alena al dayke ñin programme to kanto ñin programme o ɓe lorin pour banque dow koole e no bota je e eh, na programme o ɓe kela holle mbiya lon kon ka kenum sénégambia le bari commin sallaya fo ñamen kuwol keña kamma e eh, bota sénégambia sa e mba kela pencami holle aɗum mbiya lon ko sénégambia le warta pencami holde aɗum eh, ga tiketol men soto pour tabulolu iman siya bake e pour imari dayetara ñin kuwol kono e ɓe tariyala le e yela tabulo ñim bu pour i daye tara programme o ñinto commin ticketol ɓe laarinten ne e platino mo 60000 nati diamond mo 50000 ti e gold mo 40000 ti individual ticketol ñing o 1500 ti e albeyalo ñamen jali ba kuyata ɓe tata jeele jali ba kuyate mo jali gara balati gambe jam mbeyalo ñamen e waliɓe ɓe tata jee coon ɓe jee e o programme o mbeyalon ko wote kela programme ndenti nimbo to mina independence stadium oto le mbe ya ko independence stadium o jele warta jele simo jamatano ni aje nata independence stadium oto wala mu e nga artiste sabale soto e me ya lon ko dol bota senegal e flebo bota nigeria anin fahan la gambian e jali ngaralo mel ko e so wala tinna e malafta la dami ya lon ko isina nga foy ko dula fatale te la bare mbiyalan ko independence stadium o pour ko oto fandi e woto cahan kuuti so lafta mo da si taraje oɓe kela di 20 second le e february wala mo sibiti lungde sibiti lung ka wottalan kononto e mbe tarala independence stadium o to ko fanan kana mol da bondi je dindiŋolu mbiyalon ko woltitano gala adi titano eh, méga soñin fanan so ko nga programme o landi wol o programme o ñi wolam kids carnival di woɓe kela pencamin holle dimanche long e february karo tilimuwan nin sabo mba fola eh, moolu ni meŋ bina i kana naa dora ye la dindiŋo naati jindi bundaa to ye taa dunga tikee to duŋa bulu dindiŋolu ñanta escote le la sotala ye a loŋ ko keba kantum be ye a loŋ dindiŋolu la kuwo maañaalu ka siyaale ye dindiŋo naati ye a kiliŋ bula jee waranto ye a bula jee banta ya dinne bulaje jee e a be meŋ kela ite ma wo so mba fola dinne wadinne dindiŋ binaa jee e, ye maari kata ya escort naata ini mo ena me alon ko aɓe tara dinna o ñin jibe la kadu programme o mo be siala to fa la mo be tara jele e ka programme o ñin ka dinneol jibe bari abe bete ala be lafla ngi laflaagine fanana dinni wadin dem bina ya mek so ini escorte na pour eh, ni ko ku kata je o ni programme o banta because na lon ko kit carnival na keta programme o ka bande dinneol ka tara je mo bu kana men mbine kamma so mala fo fanana ni programme o kana bang momoro ndin yena ila dinne menti ina eta nyola nalo na programme be laarin tan okay sang a ah, min laftaka tiketo sang ibe tiketo san min tole uh, ah, komin mbeyalo ñamen na gamtali nin gamsel walla mun na main sponsor ti uh, ah, yedilal sotole mbeyela official lonne mm -hmm. kabo araba lungola mel lafta eh, na na na eh, gala tiketo la individual mbe wafila je na mega show be men kala stadium oto mbe wafila je kids carnival fana mbeo fana tiketol wafila na gamsel itata gamsel waranto gamsel dawda kabo jang fabbiri kama kabo araba lumala mm. ibe tiketo soto la jela okay san kids carnival ni wala tiketo mu jela ah kids carnival la tiketo mu 300 lati e mega show ordinary ticket mo 300 lati e vip mu 700 lati ni aje nga kewa nyama laftale mol be na mm. kantu e eh, be alon nako e mega show la eh, ye international artistol nati ye ni na jang artist bole mm yala o manke programme ndindi bari ma lafi moyena nga foye ko he kuno ni be no stadium moto lafta mo be tara stadium fandin ke obi mo me ala singo si si noji be yakata na stadium moto nimme yala man tiketo soto tiketo be wafila independent stadium moto fana bare be lafla menna jani bita independent stadium moto ela tiketo e bulu ngamira wala be sono yala molbe okay, okay. Um, how manaji nañ ko wasi olof mm. ding ko mëna wasi olof wax rek ñun gamtel gamsel ñoo fi ñëwaat tey comme niñ ko daan defee rek fukki at ci gannaaw ren di fukki lay at ak benn maanaam di ut xaalis utam xaalis mi nag ñu ngi ko def ci njiitali his excellency di président ndig moom mooy suñ chief guest of honor at mu ne waaye Gambien si réew lañ bir ne xaalis boobu ñuy ut suñ ko amee dañ ko dugalaat si biir réew mi ndig am nañ suñ naataango yoo xam ne ne ñoo ñoo ma doon liggéey wàcc nañ liggéey gaañu nañ bàyyi nañ njaboot so si xaalis bu ndaw boobu la jël di school fees su loolu passé tamit amna project ay projets yoo xam ne ne président bi ak nguur gi ñu def yu mel operation Save Baby dinañ ci dee dugal suñ loxo PEJEP dinañ ci dee dugal suñ loxo Jammeh Foundation dinañ ci dee dugal suñ loxo te xam project projets yu ne réew mi ñëpp lay jëriñ so li moo ñu tax a dugal si lii xam nañ ne nguur gi mënut a def lépp moom kenn waaye olof yi ñu ne mbooloo mooy doole ñun ñëpp suñ bokkee doole bu ko bokk a jubluwaay lépp luñ sumba rek dinañ ko moo tax ñuy def programme bi every year te gis nañ ne ñëpp seen loxoŋ ci including yéen GRTS at mu jot di ngeen ñu dee patronise di ngeen ñu dee avil air time ñun ñëpp ñoo ko bokk Gambia benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar li ñoo wax rek mooy galab bi penca mi xool la institution si bindal nañ leen am na ñoo xam ne ñu ngay def seen booking léegi képp ku soxla book table wala jënd góor góorul nga def ko fileeg londi ni xam nañ ne talaata du liggéey mm. te table yi ak ticket yi des baretuñ platinum table bi boobu 60000 la diamond bi 50 gold 40000 individual ticket 1500 ñu ne emut ci loolu am nañ another event mooy 22nd di Saturday. Mm-hmm. ñi nga xam ne ne ay ndaw lañ wala amuñ kattan gi mën a fay individual ticket wala jënd table pour dem si gala bi ñu organiser leen méga concert méga concert bi ñu ne bii bokkul façon ñu isil leen coon waali ak suñ Gambian artistes yi. ñu mel ni T Smalls Balarangs ak Humanity Band ak Flavour jógee ba Nigeria Gambien su bari dañ dee dégga musique Flavour like nañ ko waaye mosu ñoo teg bët Flavour for the first time ñun Gamtel Gamcel ñoo leen a isil Flavour ci Gambia boobu tamit pour yombal ko nit ñi ñëpp pour ñëpp mën a teewee ñu ne regular ticket bi 300 dollars VIP ñi nga xam ne bëgg nañ ñu teral leen ko rek bés ba ñu ne VIP 700 dollars yi foofu di leen utal toogu yu baax dinañ leen jox lekka di leen leen jox naan ngeen mën a teewee si programme bi boobu ñu ne ñu ngi start 9 ba bor set den ñetteel bi ñu ne waa ah xale yi nag xanaa dañ leen fàtte ñu ne déedéet xale yi ci lañ bokka ñu ne Pencami Hall on the 23 kids carnival boobu nag amut aji amut aas xale yeeg mag yi nde xale bi doog mën a ñëw rek bàyyi ko ñu ne nag mag yi wala seen yaay ànd ak xale yi yombal ko ñëpp 300 dalasi xale yi tamit waaye am na ñu ñoo laaj ne ñu xale yi seen boppa ñoo ñoo jox problème léegi flame bu xanaa du ñëw si show bi waaye loolu am ñu ngi ko ñu ngi ko lijanti because arrangement flame dafa am some tight schedule samedi rek lañ ko bëggoon waaye dinañ seet su fekkee ne mun nañoo change flight am ñu am ko ci show bi loolu dinañ ko wax nit ñi waaye daal lii taxawagum mooy dinañ am waali si show bi coon ak ñoom brokee ak a host of Gambian artists si Kids bi. ok mm-hmm. boobu tamit 300 rek la ñu quick breaks in your way. Um, they see what time we continue. We continue with Gamtel, Gamtel after this break. Um, yep. Under the chief patronage of His Excellency, the Professor Dr. Alhaji Yahya AJJ Jame. Gamtel Gamsel Staff Association is back again now. New Year's put a different new style in the building. The grand launching of Papa Chon, the long-awaited album Agogo is live in the Gambia. Friday, the 21st of February 2014. Gala dinner with difference at Benjamin Hall, Paradise Hotel. John Balagosek, the now rising star Wali Balagosek, Jelly yakku ati andi kumare banna galatina platinum tables 60000 diamond 50000 gold tables 40000 individuals 1500 saturday 22nd february mega show live at the Independence Stadium. First of its kind in the Gambia. Mr. Colo Colo Colo, Mr. Choco Choco Baby, Mr. Sekam Sekam, Naubi Dada. Flavor, Flavor out of Nigeria for the first time touching down the Gambia. Get ready for this big event. Artists in the building, Jalexa, Mighty Joe, Balaransa, Humanity Stars, Nuva, T-Smalls, MLK, Roque, Tickets.